waa salaamaaleykum Sénégal luy naa leen ziar leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi te abonné gu ñoo ngi lay ñaan rek nga abonné te activé cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal euh, di nga bokk ca ñu koy njëkk a gis way leen di like di commenter ko partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram yi fas na nañoo def taxaw seetlu ci attaquant sénégalais bii di euh, Nicolas Jackson ak première match am ak Chelsea mais nañu ñëwaat ci classement FIFA bi nga xamante ne. et FIFA a actualisé le taille donc ci mois de juillet bi euh, Sénégal ba légui mi ngi taxaw ci position bi mu taxawoon dix-huitième la jël ci classement FIFA deuxième ci classement Afrique euh, Maroc mom mo jël première ci classement Afrique bi euh, classement FIFA bi Maroc mi ngi jël 13 treizième boy xol Maroc wàcc na bu baax baax ndax té classement bi bu ju onzième la jëlone bi mi ngi ci treizième et je pense que le Sénégal bu waté man na jël li nga xamante moy place boobu Maroc nekk wala mu nekk place bu gën baax boobu noonu en tout cas loolu la leen di ñaanal et euh, li nga xamante ne mooy match amicale bi mu jël contre Algérie bu ñu ko dóoree rek yaakaar naa. dina suñuy point dina gën a yokku mais kii di Neymar Junior yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci euh, club boobu di Paris Saint-Germain ak euh, avenir am moom nag ëllëgam foo fekkee Paris li mu xamle mooy day des ci club boobu euh, di Paris Saint-Germain ci saison bi ñu dëmmal Neymar kàddu yi mu yëkkati mooy que ci club boobu lay dese nii ndax dafa am contrat ak Paris Saint-Germain même si que moom ak. supporter yu Paris demewul nonou bëggante bi et tout ak nu manti da fay jouer ndax te contrat mom ak ki club bobu di Paris saint di euh, l'ensemble maximum donc si na ci club bu Edouard Mendy Al Arabie Saoudite comme nous l'avons ko Nicolas Jackson def na première titularisation avec ak Chelsea il a bu une a baax malgré que match amical la wane na boppam bu baax a na qualité yi mu am potentiel en tant qu'attaquant de pointe vraiment mu def passe décisive joué 45 euh, minutes ce ñu gis ci moom mooy que attaquant la boo xamante ne euh, profil bu mu yor mën na réussir foofee euh, Chelsea et comme nous l'avons ko di je pense que Nicolas est moo gën nekk attaquant bu bu gëna bu gëna complet que Didier Drogba bi nga gars di tëkkaleel comme fofé ci Chelsea parce que techniquement mom mo gëna kawé ki nga xamante moy euh Ivoirien bobu di Didier Didier Drogba attaquant la boo xamante ni dafay dugal dafay dribbler fay dindi ben ñaar ba ñett et je pense que ne dina réussir fofé ci Chelsea.